jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen programme euh, Walf TV ñu dalal sunu gan euh, journaliste analyste Demba Ramata Dia maa ngi lay nuyu. Abdou Khoudous maa ngi lay fay. ci kanam tuuti euh, ñu ànd seetaan dossier bi nga xamante ne moom lañ defaral Safiatou Cissé euh, ci anam gi ñu yore alalu réew mi loole nag ginnaaw Cour des comptes fësal na euh, li nga xamante ne li jëm ci li ni ñu jàpp ne nag am na ñu ci bëri ci ni ñu yore seen direction baaxul dara tax na ba Safiatou Cissé dem na seet ji xalaat société civile ak opposition ñu teewlu ko. Cour des comptes fësal ay rapportu atum 2015 2016 ak bu 2017 si ay bés bi ñu génn ana nan lañu war a mën a def ba yi lépp rapport am njëriñ maître Pape Sène fare sa APR di xamle rek ni moom ak kii di njiitum réew bi Macky Sall ñoo bokk xalaat si lu mel. dama jàpp ne rapportu Cour des comptes bi defe naa ne liy tax tey xëj na ñu mun a am rafet njort ne. li mu gis ci ay anomalie ay dysfonctionnement ak manquement mu bañatee am il faut que ñu créer benn commission boo xam ne nii parce que ñetti rapport la ñu jàngat rapport yooyu xool li ci nekk jël temps bañ a gaawantu li ci tegu mooy dégg ngeen mu wax ne que également joxe instruction au gouvernement surtout au ministre de l'économie et des finances pour que ñu mettre en œuvre toutes ces recommandations la te rapport damay wax ne ay aspects yu bari la. surtout rapport bu mel ni rapport Cour des comptes parce que bu déceler ay anomalies ay dysfonctionnements ay manquements xëñ na premier aspect bi benn aspect ci aspect yooyu mun na nekk que mu gis ne que manquement bi am na benn gravité wala jéggi na dayoo. te it jar nañu jox ko ñi nga xam ne ñoo yelloo pour àtte. ngir nag yi lépp rapport am njëriñ il faut que rek ñu wone à volonté politique dëgg bu ànd ak séparation des pouvoirs lu nu mel nag di xalaat yi Cheikh Fatma Diop di kenn si cadre PASTEF le patriotes. man ni ma ko gisee pour man il faut mu am lu ñuy woowee ci tubaab volonté politique maanaam président de la république nekk fii euh, gis ni war nañ mën a jàllale yenn rapport yi nga xam ni corps de contrôle yi ñu ngi koy ñu ngi koy jébal président. pour que xaalisu askan mi ñu mën a saytu xool ndax mi ngi dugg fi mu war a dugg waaye bu fekkee ci président actuel bi lañ koy xaar defe naa dina doy waar parce que entre 2012 ak 2020 bi ñu nekk nii pour man doxul benn jéego boo xam ni mën nañ jàpp ni dina ci dina ci def dara donc loolu nag bu ñu ko defee comme constat pour man peuple sénégalais bi ñoo war a xam yan xeetu dirigeant la ñuy fal pour que dirigeant yooyu bu ñu toogee mën a def justement ay jéego ay réformes pour ñu dem vers une séparation des pouvoirs nga xam ne ku ci nekk di nga mën def sa liggéey te keneen du la du la personnel. bi ñu ko laajee jëmee si lu nu mel Abdourahmane Sow di njiitalu COS M23 di sàkku rek ñu amal ay réformes te rek kii di procureur de la République di Serigne Bassirou Gueye amal ay poursuites judiciaires. xanaa ñu am ay lois yu bees ay lois yu bees parce que seetlu nañ ne que. Euh, rapport yi ñuy produire yenn yi dañuy dem ci loxo président de la république yenn yi dem ci loxo procureur maintenant suñu euh, loi yi ni ñu tëddee euh, procureur am na opportunité poursuivre ba la déet moom la ñuy wax le maître des poursuites ñu seetlu sax que ne yenn rapport yi am na yoo xam ne buñ ko defee yenn saa yi day mel ne day tombe ci ay acteurs politiques yoo xam ne ay adversaires du du pouvoir lañ enquête bi dina gaaw te dinañ ko def mais bu dee ay ay farandoo président de la pour ay des rapports yoo xamante ni ça épingle ses le procureur se fait désirer ñu gis président de la république boo xam ne nee na euh, waaw dafa am une euh, des des des une volonté et des désirs sur en tout cas beaucoup de dossiers qui sont gérés yenn yi mu ne dafa jël concam teg ci kaw comme que loolu la euh, faw ñu xeex am loi yu yees yoo xamante ni procureur bu ñu ko jébalatee rapport yi ñu obligé ko. loi yu bees yi nga xam ne moom lañu bëgg ay réformes yu woon ñu obligé ko mu ubbi l'enquête par force parce que tamit xaalisu askan wi la askan wee ko moom euh, neexul ci xol ñuy dégg ay milliards ñu koy pasar pasare xamuñu ndax ñañ koy jiñ def nañ déet jàpp nañ ne que loolu dañ ko war a yeesalaat am ay loi yu bees. ay rapport yu ñu joxul benn dayoo ab doxalin bu ñu ñaawlu bu Macky Sall di ne ni lu ni mel ay dysfonctionnement kese la yoo xamante ne dina si andi saafara askan wi. si wàllam di sàkku rekk lu nu mel dakk ba faw jërëjëf euh, Safiatou Cissé Demba Ramata Dia ñoo ko gisandoo euh, lu jëm ci wàllum euh, rapport de la Cour des comptes acteurs yi nga xamante ne jot nañ leen ko ko laaj daanaka li bëgg mooy poursuite judiciaire mais est-ce que ci nguru Macky Sall bu ñu ko falee ba tey volonté boobu euh, gis nañ ko ci moom en tout ci mbiru rapport Cour des comptes dafa am ñaari yëf yu ëlëm samam xel bu njëkk bi mooy 2014 ba 2020 Cour des produirul benn rapport en tout cas ko public muy benn te wax dëgg yàlla prérogative yi am na ko am na moyens yi am na xayante bu chaque année wala ñaari at yu ne mu génn rapport. xëy na peut-être élection yi nekkoon si diggante bi. bon élection yi aussi mën na am am na lu mu ci doon mais terewul liggéey bu ñu ko dénkee am na am lu la ca war boo ko mënee matal mooy li gën ci ñëpp mooy li gën ci yow ma ko yor parce que responsabilité nga yor mooy mu gën aussi aswan wi askan wi tax ngay jóg ci lool te askan wi nga xam ne moo lay fay. ci moom la ñuy jël alalam di la ci teg ci condition yu normal beneen bi ëlëm sama xel mooy président Macky Sall bi ñu ko joxee rapport yi dafa ne day créer commission bu ñu xoolee ci taarixu yorinu Sénégal 1960 ba léegi kuñ mës a jox rapport Cour des comptes da ngay càmbar dossier yi en tant que président de la République gardien de la Constitution est garant aussi de la sécurité ak euh, de l'économie du Sénégal léegi yow da nga koy càmbar boo ko càmbaree xool loo xam ne jéggi na dayoo ci sa waa ak say conseil nga jébbal ko juge bi donc commission bi ban njariñ lay am ndax constitution bi may na président république mu créer beneen commission buy saytu waa cour des comptes day mel ni ñooñu seen liggéey des na donc loolu ëlëm na ma te bu ma xoolee ci ginnaaw tuuti président de la république am na fii ñu mu santoon liggéey maanaam commission nationale de réforme des institutions bi Amadou Mahtar boobu jiite woon ñu liggéey fii def fi lu am solo jébbal ko ko mu ñu tuddee ko sénéri mu ne man dinaa seet li ma neex ma ma ma jëfee ko appliqué ko waaw ci bu loolu weesoo xool nañ ne 2012 ba léegi président de la république amul kenn ku bokk ci ñoñom ku ñu inquiété wadd sax bu ñuy fàttaliku jotoon na fi tëj Modibo Diop ci moom la bokkoon jotoon na fi bay la Wane ci moom la bokkoon waaye de 2012 ba léegi vraiment ñëpp ñuy jiiñ ñi ñi ñu tuumaal kenn gisul daal ñu gësëm leen benn yoon yëngal leen wala ñu leen di woo sax du leen laaj loolu day teexal tax na sax ba am ñi nga xamante ne bu ñu leen tuddee ci li ni mel euh, euh, da nga leen di gis sax ci attelage gouvernemental bi ku mel nii euh, Cheikh Oumar Anne nga xam ne rapport nag moo ne woon na mu yoree kut bi baaxul ki ñu mu jógee ci direction des centres du centre des œuvres universitaires de Dakar ñu yóbbu ko ministère de l'enseignement supérieur est loolu yëpp day firndeel que ni président Macky Sall xëy na jotagul euh, fu muy jëlee yenn engagement yi ngir daal di fexe ba corruption bi wàññeeku. bi mu jëlee nguur gi président Macky Sall li mu njëkk a wax dafa ne nag pour ñu ñun la CREI yi pour ñi ñi fi jotoon a jaar. ñi fi jotoon a jaar. léegi OFNAC liggéey liggéeyam mais Cheikh Oumar Anne directeur du COUD. ni nga yoree li bi yoree. direction bi bi ni nga géré baaxul. am na loolu lu ci of naag teg lu garaaw mooy bu ko kenn sampati. société société parce que waaw mu diriger leen. parce que dafa baaxul ci nu ñuy yoree waaw ba dañ jàpp ne ñoom kii kenn waratu ko jox lu muy diriger ay société wala moo nekk directeur fen of nag loolu la bind. mais terewul président Macky Sall bi yooyu weesoo. jotuñu sax càmbar loolu mu jël ko nommé ko ministre loolu aussi day doon lu doy waar day mel daal ay ñoñam am na fu ñu ko féetee wala moom am na fu mu leen féete bëgg leen bëggul dara dara takk ci ñoom mais li ci doy waar mooy moom moo fi teg institution bi bu ñu sañoon daal institution bi di dem ba jeex comme ni ko xale yi di waxee. ki njëkk a génn euh, daanaka wax ci bi les rapports euh, des euh, de la cour des comptes ki nga xamante ne nee nañu na mu yoree yore CICES baaxul mooy Cheikh Ndiaye moom def na demb doon jël jànnak tasat xibaar yi ndax nee nañu ci biir ci biir rapport wi lu toll ci 78 millions moom lay utiliser pour daanaka dagg ay garab ci ci biir CICES. est-ce que si jamono bu ñu toll nga xam ne njiitum réew bu Sénégal li tax ñu fal ko ndax dafa ne moom lu mu bëgg mooy gouvernance sobre et sobre et vertueuse te bu pare digg sénégalais yi man suñu ma falee am na yu bëri yi nga xamante ne dina dàkk ci réew mi. waaw léegi bi ñu ko falee loolu la ñu waxoon mais gis nañ ne mooy li nga wax nii dafa doy waar xam nga fukki juróom-ñaar fukki million ak juróom-ñett nga jël ko ne moom nga utiliser pour dagg ay garab. garab yooyu xaw fan lañ nekk peut-être beneen beneen planète lañ nekk waaye garab yu nekk Sénégal wax dëgg yàlla boo jëfee alal ju nekk loolu doy na war bon président Macky Sall ñu ngi ko doon xaaree fu fu fu fu mu wone ne am na yéene lépp lu nekkul yoon ci réew mu doxal ko ku nekkul ci yoon aussi mu teg ko moom waxoon na ko sax nee na je ne protégerai personne bi mu jotee nguur gi benn Jeune Afrique di ko def interview mu mu wax loolu waaye nag dem nañu ba aussi benn jamono lu ci doy waar mooy dafa ne moom am na dossier yoo xam ne moom da cee teg loxo yooyu bu dajaloo ci mbir ak ñun ñuy gis suñu xel day gën a tey te yaakaar day tas si ñu bëri. Euh, tas yaa yaakaar bi gis nañu ko en rapport des cours de comptes mais ci mairie yi euh, ci ak yeneen direction euh, tey sénégalais yi perception bi ñuy am ci wàllum euh, sunu sunu sunu politiciens yi euh, est-ce que confiance bi euh, dina may sénégalais yi moom wax dëgg yàlla boo demoon toog koo ci toogal nii waxtaan ak moom amatuñu yaakaar ci réew mi amatuñu yaakaar aussi ci ñu leen jiite amatuñu yaakaar aussi ci ñu yor doxaliin doxalin yu bari ñu ñu dénk alalu askan wi parce que am réew moo xam ne wax dëgg yàlla amuñu doole bien vrai ñu ngi ñaan yàlla pétrole bi ñëw nu mu gën a gaale mais amuñu doole ci wàllu koom amuñu doole ci wàllu alal bokk nañ ci juróom-ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol donc yooyu yëpp bu dajaloo ci am réew ngay xool nit ñi jël alal yi duñu ko dugal fu ñu ko war a dugal wax dëgg yàlla loolu dafa metti ci xol donc Sénégal yi bari fi mu toll nii dañoo découragé boo xoolee secteur yi gën a am solo ci am réew maanaam njàng muy éducation maanaam santé muy wér-gu-yaram kooku dafa lompoñ donc foo gis chaque semaine wala chaque doo toog weer bu mat ñi ngi grève ñi ngi donc yooyu yëpp moo lay wan doxalin bees na boole koog nag prix yi yokk yooyu yëpp bu dajaloo ci nit ñi seen dund day metti te wax dëgg yàlla bu buñ la dënkee état li ñuy yaakaar mooy nga procure nga jox leen maanaam naataange fexe ba point A bii nga leen fekkoon nga yóbbu leen point Z wala fu gën a sori loolu la ñuy xaar ci njiitu réew waaye coow li bari na waaye wax dëgg yàlla askan wi gisuñu seen bopp ci ñiy yor réew mi ni ñu koy doxalee te chaque jour ñu gën a am naqar parce que chaque jour ñu xamal leen ne am na njombe gu am te njombe googu duñ duñ ci gis saafara te yàlla dogal na organe organ yëpp yu war a saafara loolu am na mais seen liggéey daal bu déparé toujours du àgg. kon est-ce que nu ñu doxalee ak euh, le rapport de l'IGE euh, mbirum xalifa Sarr bi ci mairie bu Ndakaaru ak nu mu gaawee euh, tey waruñu woon doxalee noonu itam ci rapport yi nga xamante ne jot na fi jaar ja rapport yi nga xamante ne OFNAC def na ko ak Cour des comptes ak yeneen jotutu woon ni ñu defaree euh, ni ñu ko ni ko euh, yàkkamtiwee ak Khalifa Sall. ñu defee ko ak ñi si des ñu bari ñaawlu nañu loolu. wane ne bu dee mbir yoo xam ne concerné na adversaire wu ñi nekk ci nguur gi dañ koy pëlëm pëlëmee fexe ba liquider ko nu mu gën a gaaw waaye daal bu dee seen mbiru bopp wax nañ fi ay quatre-vingt-quatorze milliards ñaata at ni ñu koy wax. mbiru Mamour Diallo Mamour Diallo. ak wax nañ fi waxu Prodac Prodac vingt neuf milliards ak yeneen ak yeneen te sëñ bi lu ci doy waar réew mi ay milliards rek la ñuy waxtaan te milliards yoo xam ne doo xam fu mu jaar te du mujj fenn loolu daf ñu ëlëm daal léegi daal li li liñ doon li ñuy xaar daal mooy nañu fexe que rapport yi comme que dañ dañ ko dénk président dañ ko teg ci table président de la pour mu exploiter yaakaar nañ ne dina ci def li ci war malgré que pour jusqu'à présent bon jéego boobu ci wàllu côté boobu des na parce que ñaar fukki rapport ak benn ñu ngi ci taabalu procureur yoo xam ne OFNAC moo ko jo moo ko fa teg ba léegi gisuñu ci benn jéego nga demaat aussi CENTIF am na lu ma juróomi téeméer rapport dañoo def rapport ba de de xamuluñu fu ñuy teg rapport donc yooyu yëpp bu dajaloo ci am réew wax dëgg yàlla de de te li gën a doy waar mooy réew mi dafa soxla dal dafa soxla dal mais ak problème yëpp nañu fexe daal ba nit ñi gën a gisaat seen bopp séparation des pouvoirs bi des na waaw xam nga sëñ bi suñu démocratie sëñ Xudóos dafa am ñaari mbir yu koy gàllankoor bu njëkk bi mooy boo nekkee chef de l'état nekk chef de parti ku nekk chef de parti chef de l'état nekk chef de parti da ngay nekk chef de clan chef de clan mooy da ngay am foo far donc yooyu yëpp day tax ni ngay bëgg a demee ci biir à fond ci mbir yi day am lu parce que am ñoo xam ne dafa am fuñ la féete am foo leen féete am foo leen di yaakaar yooyu yëpp bu dajaloo pour nga am autorité bi lay war déngoo nee na la ne bu ma ne woon sama premier mandat de sa mandat bi. sama mandat bu mujj Sénégal yi ñi ma àndal du liggéey du ñu liggéey wax dëgg yàlla loolu day wane ne autorité bi des na parce que yow réew moo la fal. jox la lépp li war ci yow ne la doxalal yoon fexe nit ñi liggéey wax dëgg yàlla ku bu yoree réew mi koy wax naa ne damay doo fii la sax maanaam dootuñu liggéey wax dëgg yàlla loolu moom lu doy waar la beneen mbir mi mooy justice pouvoir justice judiciaire ak pouvoir exécutif dañoo dañoo jaxasoo lënkalante duggante ba nga xam ne généralement pouvoir justice judiciaire bi lu muy def day bàyyi xel ci pouvoir exécutif nga xam ne dogal yu bari da koy bàyyi xel ci loolu bu loolu yëpp dajaloo ci am réew nag jubal fa ak doxal fa ak teg mbiri ci yoon day dal di jafe. mais ab président bi nga xamante ne ma ngay waaj a jeexal ndax euh, bu ñu sukkandiku ci constitution bi bii mooy mandat bu mujj bi Macky Sall ndax euh, normalement warul laajte euh, troisième mandat deux mille vingt quatre jotutu woon mu jël ay engagement yoo xam ne dina tax au moins ñu ne Macky ca jamono yi mu doon gouverner euh, am na lu bëri lu sappee moom da ko yàgg jël mais xam nga dafa am lu Barack Obama wax nee na on n'a pas besoin d'institutions fortes maintenant on a besoin d'hommes forts soxloo ñuy am ki mais nit ki li mu gëm ak li mu kii na ko na ko na ko dawal te yàlla jox na ko pouvoir yëpp mën noo ko mën na bu bu bëggee fi muy jub fi nit fi fi muy xool nit ñi xool fa mën na ko am na loolu léegi nag dafa am ay contingences yu bari yu nekk ci ci réalité du pouvoir du lu ñuy teg ci mbedd wala dara moo tax yu bari nag yéen dina am mais jublu ci ba matal ko mooy doon loo xam ne day jafe Senghor jaar na fi ab Wade jaar na fi li doon wax ñoom ñëpp ak Abdou Diouf biñ demee ci ba ci pouvoir am na yu ci bari dafa sooxe dafa soxe ci gouvernance bu Macky Sall dinañu ànd ak Cheikh Tidiane Gomis nga xam ne euh, sekk na waxtaan ak euh, Djibril Wade euh, yore ñaari tali lu jëm ci wàllum proposition bu FIFA pour organiser la Coupe d'Afrique ñu teewlu Cheikh Tidiane Gomis ak Djibril Wade Djibril yooy yaay président ñaari euh, tali bokk ci dirigeant wu footballu Sénégal kii nga xam ne mooy Infantino di président euh, FIFA dafa def benn proposition euh, mhm. mu ne léegi na africains yi di organiser Coupe d'Afrique des Nations quatre ans ba quatre ans léegi yow ban avantage nga ci gis. am na loo xam ne pour man amul importance Infantino wala keneen wala keneen proposé ko amul importance li mooy li ñu proposé lan la est ce que baax di ko proposé defe naa ne importance donc li ma gis mooy am na baax na parce que ñu defee coupe du monde ñeenti at coupe d'Europe li ñuy def ñeenti at moom damay jëm aussi coupe d'Afrique war na mën nekk ñeenti at donc ak FIFA aussi coupe du monde ñeenti at donc defe ne ñetti continent yooyu ak euh, FIFA ku nekk jëlee benn at ak bu nekk dañuy compétition majeure donc loolu dafa nekk loo xam ne lu baax la ensuite Afrique loolu la ci organiser Coupe ko xoolee parce que amuñu yenn dëkk yoo xam ne ñoo ko woon jël Égypte encore bii passé moom xoolee au secours la amuñu woon dëkk bi jël ba pare woon na jël te Cameroun moo lay wan ne que les pays des problèmes pour organiser des des des coupes d'Afrique ensuite mu problème mu climat bi ta beeg yooyu boo ko seetloo sax coupe d'Afrique bi ñu organisé woon Guinée équatoriale Sénégal boo ko li gën a tax ñu ñàkk ko mooy premier match taw taw taw boobu. loolu aussi il faut ñu ko xool ko donc bu ñu ko seetee donc pour les Qatar yaakaar naa ne seet benn dëkk boo xam ne mun na organiser remplir na condition bu organiser bu a taw moo gën ensuite a gën a mën a baax baax te loo xam ne aussi dañ koy pour le ñeenti at nekk dañ koy namm waaye ñaari at yu nekk na nammees euh, du ci am léegi boo ci boolee aussi di organiser CHAN di organiser Coupe d'Afrique des clubs champions des vainqueurs de coupe avec xaw a bari te aussi Coupe d'Afrique bi la plupart nga xam ne ñoo ñoo ciy dem seen joueurs yi en la évoluer condition élection yi ñuy laaj ak nga leen indi fii dafa cher trop trop rien bu éliminatoire rek ni ci dépensé ci xaalis ci avion spécial ak vol spécial dafa bari bari ba nga xam ne te xaalis boobu ñu ciy def kenn du si fekk si te loolu ci soobu jëm donc dafa ne loolu am na fenn yu mën a wax état bi mu def ko fa boobu dina gën a am njariñ <laughs> te aussi dina noppal aussi les stars là mu ñoom Sadio Mané ñoom Gana Gueye dina tax sa ñoom gën a mën concentré a a a les quatre ans. Mhm. waaw mais euh, président euh, Djibril Wade am na ci ñëw euh, ñoo xam ne ay anciens joueurs nee nañu daal maanaam dañoo bëgg a rey footballu africain lu ci sa xalaat. loolu rey football africain loolu a dund football africain parce que yooyu football africain yi nekk Afrique. ñu jouer toujours maanaam jour bi bi nekk jaraaf. jour bi nekk génération pour di jouer règlement et compétition internationale. du du loolu mooy defar football africain vraiment dafa mu nekk di nga daan de bonne condition egg na ba pare booy dimbali da ngay dimbali koo xam ne eggagul te di organiser compétition ñi nga xam ne eggaguñu defaguñu dara waneeguñu dara ñu leen di seetaan loolu mooy defar football africain waaye du ko nga fekk nga xam ne match la nañu defar nañ la ñu ngi au très très haut niveau te pour nga déplacer leen rek ay millions millions millions nga ci dépense te seen assurance rek beneen affaire la waxuma la ak leneen donc loolu rey football africain mais peut-être que ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy organiser compétition africaine yi peut-être que ñoom lay xaw a rey man sama gis-gis la de parce que ñoom affaire organisation régulière tout de ay compétition africaine de haut niveau ñoom da fay ji ci seen bopp ci wax def ay yooyu yooyu leen ciy ci ñoom du ci dépensé ne ñoom aussi sport mu lu ñu am moo leen ko jox te ñoom aussi seen club dëkk dëkk dëkk muy Cameroun muy li ñuy def du président de club yi ñoom ñoo ñu def man ne li koy def ñu mel ni ëpp wax dëgg yàlla ko ñooñu ñuy organiser compétition africaine daf leen ñoom seen intérêt la ñuy aussi il faut ñun aussi ñun ñoo nekk di organiser football bi dans les différents pays muy Mali muy Sénégal muy Côte d'Ivoire loolu donc ñun ñi man muy wax sax am naa ci benn intérêt xam ne dina permettre suñuy joueurs ñu gën a Sénégal di gagné loolu moo importance loolu loolu excellé les intérêts particuliers je pense que liñ ci gagné moom moom voilà Djibril euh, gërëm di lay sant. maa ngi lay gërëm di la sant merci beaucoup. ñu ngi lay gërëm yow tam Cheikh Tidiane Gomis doon euh, ànd ak euh, Djibril Wade président de Ñaari euh, Tali dem Hamata Dia ñu question d'actualité lu jëm ci wàllum feebar boobu ñuy duppee coronavirus foofu la ca Chine mm-hmm. étudiant sénégalais yi fa nekk bëgg ñibbi Sénégal groupe Sénégal ne mooy amatul yow ban jàngat ngay am ci li ni en tout cas man bi ma déggee le président Macky Sall wax lu demee noonu bon na ma trop pourquoi parce que sénégalais bi dëkk Qatar bi dëkk Alaska bi dëkk Wuhan bu dëkk fé fépp ci àddina bi président Macky mooy mooy président donc bu nekkee ci situation bu metti war na sunu état mu jàppale ko donc te ñooñu fi nekk. ñaan ñu ko yàlla waaye bu leen corona coronavirus dalee dañuy wàcc liggéey donc seen parents yi dañoo jaaxle bu ñu ñoom bañ nañ ko ba sax teg nañu benn collectif pour ne présent Macky mu dellu ginnaaw ci li mu waxoon bu taxawee ne man mu awma moyen yu mu ko te am nañu moyen jël trente milliards defare ko ab estat am nañu moyen defaraat leneen ak leneen ak leneen ci ay xaalisu réew mi donc bu dee bëgg nañu indi ñooñu du doon loolu warta jaaxal état donc bu loolu wéyee donc nañu fexe daal ba sénégalais nekk dans condition de sécurité sanitaire fexe ba daal ñu aar leen ba réew loolu mooy seen war loolu tax ñu teg leen fi bu leen falee aussi teg leen ci bopp réew mi dañ yaakaar ne fu réew mi seen waar réew mi seen bët xonke nga nekk Chine wala nga nekk feneen di nga gis ku la wallu ku ñuy wax état du Sénégal. surtout que étudiants yooyu fa ñu nekk euh, foofu la ca wu ah. Euh, foofu euh, nekk foofu ngi rey ay nit man na juróomi téeméeri nit yu faatu fi mu toll nii wax dëgg yàlla ku mu doon sa mbokk wala nga am ko. di nga du seen ni ñuy def bu mu ñëw. parce que fu mu toll nii étudiants yooyu problème bu ñu am mooy daanaka isolement ci bi ñu nekk. pour génn dem uti ji lekk c'est un problème. ñu dégg ne ci ndimbalu nga xam ne lool la bëgg nguurub Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr def euh, sortie médiatique ne euh, danañu euh, seen cellule psychologique bi dana dugg waxtaan ak étudiants yi ngir daal di dalal seen xel ndax ñoom gouvernement bu Sénégal dafa jàpp ne xëy na peut-être isolement bi moom moo tax agitation bi am waaw loolu lañ jàpp mais man pour man daal war nañ def plus quoi parce que loolu mooy seen rôle te loolu foofu la leen di xaaree fexe ba ñu nekk dans les norme de sécurité sanitaire et puis ñu yëg ne seen état mi ngi seen côté loolu daal mooy li am solo bu ñu ko mënee loolu mooy gën. ñu ngi lay jaajëfal Demba Ramata Dia journaliste analyste ci euh, invitation bi nga xam ne euh, ñu jéggalu nag. bu doon séeréer yi xam naa xiif nañu. waaw ok jërëjëf euh, ak Abdou Khoulous kontaan nañ di leen gërëm vraiment ci seen émission bi nga xam ne am na solo quoi. Euh, jërëjëf ñu dem ànd ak Abdoulaye Bopp euh, ci yéenekaay yi. dal leen ak jàmm ñii daay étudiants yu Sénégal te ne ca Wuhan foofee ca Chine newatuñ ci jàmm gannaaw jàngoro coronavirus ma fay wéy di def musiba lim bu takku ci ay doomi aadama faatoogum nañ fa Walf Quotidien te booba léegi nguurug Sénégal jëlagul matuwaay ngir mun faa jëlee étudiants yu Sénégal ya fa ne delloo si leen ci saa ci réew mi doon lu jaaxal lool seen waajur jot nañoo janoog taskatu xibaar yoro Yoroba mayor seen kàddu na ay fana ngi ni munatuñoo nelaw ba yandoor jaaxle la ñu def ci seen nekkinu doom foofee ca Wuhan ca ndax say su ne mun nañ fa ñàkk seen bakkan Yoroba ne nañu lu leen metti lool ci déclaration njiitu réew mi Macky Sall mi xamle yàggut ne nguurug Sénégal waajagul ngir mun a jëlee doomu Sénégal ya ne ca Wuhan leneen ci ay kàddoom ci Walf Quotidien moom Yoroba ne xoolal ma France ak Maroc Algérie ba ca Tunisie ba ci Mauritanie gu ñu jege lool ñoom ñëpp ci saa si jëli nañu seen doom ya ne woon ca Wuhan Yoroba ne matuwaay yi ni mel amuñu ko nguurug Sénégal ñoom waajuru étudiant ya ne ca Chine ca Wuhan ne tey jile seen fit toogatul ndax guddeeg bëccëg seen doom ya ñu ngi leen di woo téléphone di leen xamal na ci jafe-jafew tar lañu ne ne ngir am dund lu toll ci ñaari kilomètre te saay su ne jàngoro gii di coronavirus mun na leen a dugg ci ay kàddoom yu daw yaram moom yoroba ay rongoñam mujjee laal suuf yéen a kaabi di turbine yooyu la njaboot lenn dong la ñuy sàkku ci nguruk Macky Sall maanaam mu képp kattanam ngir étudiants yi yeewoo ca Wuhan ñu mun a yeewoo fii ci Ndakaaru Amadou Gueye njiital kuréel gu ñu duppee Union des indépendants du Sénégal ne nguurug Sénégal bu amul matuwaay bu amul jumtukaay na sàkku ndimbal ci yeneen réew yi ngir mun a jublu ci doomu Sénégal coronavirus ma lëmbee Chine caxuwaan te ay doomu Sénégal di ay étudiant di fa jàngee seen waajur ne fii ci ndakaaru lekk ak naan defatuñ ko ndax saay su seen doom mun nañ leen a delloo siwaat ci réew mi waaye day fekk mu wees maanaam ñu doon ay néew Malick Gakou njiital grand parti ay kàddoom ci laas ne njiitu réew mi Macky Sall jaadootul muy dem di tukki te jubluwul ci bile dossier fexelu ba étudiant yi ne ca Chine mun faa ñibbisi ci saasi ba ko ñaareel Malick Gakou am tiitaange lool ci ñàkkum kaaraange gi ne ci réew mi ne na ci nguur gi jël matuwaay te mu bañ cee dugal politique réew mi quotidien jafe-jafe fukki étudiant ak ñett yane ca xuwaan ca Chine dossier gi ni mel la ca xew yëpp waxuñu ko étudiant yaa ngay woote wàllu te nguur gi jéemagu ci lenn joru ngi ñu denk wàllu paj mi Abdoulaye Diouf Sarr ay kàddoom mu ngi dalal xel yi ci nekki ñu doomu Sénégal ca Chine yéen a kaabidi critique ne bi la jàngoro coronavirus mun ko ràññee ci continent Afrique dina doon lu jafe lool bu ñu sukkandiko ci Institut Pasteur bu Ndakaaru Amadou Alpha Sall njiital Institut Pasteur wax na ci ne ci Afrique kuréel dong ñoo ko mun a càmbar di Institut national des maladies transmissibles te ne ci Afrique du Sud kuréel yii le amul kenn ku mun a détecté maanaam ràññee lii di jàngoro coronavirus ci Afrique yéen a kaabi di la témoin ne coronavirus ak jàngoro gii di Ebola sotti ceeg def ci la daanaka loraange gi benn la bu ñu sukkandikoo ci docteur Amadou Ali Maguèye Abdoulaye Diouf Sarr jawriñ ñu denk wàllu paj mi ay kàddoom ci biir yéen kaay ne Sénégal jël na matuwaay ya ca war ngir mun cee fagaru ci bërëbu fajukaay yu bëri lu demee ni hôpital Fann Dantec principal ba ci hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff yéen kaay bi di les écone jaaxle lool am na ci gi boot waajuru étudiant Tine ne saay su ne jàngoro gii di coronavirus mun na leen a dugg Yoroba mayor kàdduk seen waajur daal artu alerte na ci biir yéen kabili Les Échos ne Sénégal na def kemtalaay kàttanam delloo leen na mu gën a gaawe lu ko mooy moo gën delloo si seen néew Doudou Wade ay kàddoom ci Les Échos jot naa ñaawlu doxalinu nguuruk Macky Sall ne ci bile dossier def cee seetaan askan wi Doudou Wade ne ci jamono ji Sénégal amul président gamu yeeyoo waa Grand Place ne jafe-jafe am na ci accord de pêche yi doon na lu jur fitna yàggul ca Guet ay mool yu bari gisuñu seen bopp ci yile accord de licence de pêche jafe leen lool saa su ne ñu leen di bunduxataal ci géej gi seen bakkan di ca des yéen kabi di direct news ne jafe-jafe geneen a ngi ni jëm ci campagne gerte gi atum ren ji lajj na chinois yi ñoo ci ak direct news ne bu ñu deful ndànk Sonacos ci tëj la jëm yéen kabi di l'observateur ne ci waxtu wi le ay entreprise yu Sénégal ci tëj lañ jëm ndax seen koom-koom demeetu ni ndax lu ëpp juróomi junni liggéeykat dàq nañ leen ba ñu ngi ci mbedd mi ba bi di CDE mi ne ci tànk dàq lu tollook ñaari téeméeri liggéeykat ndax koom-koomam demeetu ni juróom-ñaari téeméeri liggéeykat Medis Pharma lu toll ci ñetti téeméeri liggéeykat ñu ngi ci guddi gu bër setagul saay su ne mun lañ leen fa dàq Copéol ca Kaolack lu toll ci juróomi téeméeri liggéeykat ña ca mbedd ma dàq nañ leen yéen kabi di PSE e, doon na lu xajamal bi le national déggoo amagu ca yéen kabi di wutali assemblée nationale gannaaw ya Moustapha Cissé Lo yàggut yekkoon lu mel ni xeme Moustapha Niass njiital assemblée nationale yéen national ci biir suñu lam njiital écurie di Gris Bordeaux ma ne bari lool la muy def année blanche maanaam la muy toog atum lëmm te du bëre gannaaw ñaar fukkaat ak ñett ci lamb ji am lu tolloog ñaar fukki combat ñaar Abdoulaye Bopp ñoo leen jaajëfal itam yéen ñi nga xamante ne yéen ngi teew di seetaan seen programme bu Walf TV di jaajëfal euh, sunu technicien bi Modou Fall ak ñi nga xamante ne jàpp nañ ci euh, réalisation bi le édition ñi leen dig daje euh, semaine prochaine jaxe ngeen jëf.